mu ne ko sa baay xalamkat la woon xalam gi dafa bàyyi woon ci àdduna ganaaw xalam gi ab sàcc la woon kon da doon laaj sa baay lu mu doon liggéeyee sa xalamkat la ab sàcc la woon ñu daan ne ko jëfe yàlla dañoo bëggoon ñu yor la ci teen bii am na saako yu fi nekk ñetti saakoy or la nga génne ko nit yeew ko ci buum gi ñu wëgg ko su génnee danañ la sédd ci alal loo xam ne da nga mën a wëlbati ko fi nga doon dem yàlla sunu boroom dafa bind doomu aadama boole ko ak ay nattu ay jàngoro yu ko mën a gàllankoor waaye daan ñi boole ak ay gaayam yu mu joxi kemtaan ba ñuy saafara jàngoro yu bari yu doomu aadama yi di weyaale bokk ci ñoom jàmbaar ju kenn dootul laaj aw turam muy Serigne Ousmane Ndiaye tradipraticien Serigne Ousmane Ndiaye nag di boroom xam-xam buy faj-fajum cosaan waaye ay garabam mu di ko composé ak lii bàyyi koo ci gàncax Serigne Ousmane Ndiaye nag sunu boroom may ko lool ci faj li nga xam ni mooy ndoxum siti moo xam muy bu nëbbu bi wala bu feeñ dina faj hémorroïde interne wala externe benn dina faj tension waaye it dina faj estomac Serigne Ousmane Ndiaye yemul foofu waaye dina faj rhumatisme dina faj góor gu néew kàttan dina faj hépatique dina faj jabet ak sciatique ak jàngoro yu bari yu doomu aadama yi di weyaale te li ci gën a neex nag mooy ay garabam lépp ci gàncax yi lay bàyyi ko moo tax boo ko dee jëfandikoo du bàyyi benn effet secondaire ci sa yaram ndoxum siti nag di jàngoro ju yaatu te sonal doomu aadama yi waaye bari ay màndarga ak ay signes yu mën a feeñe ci nit ki góor ba indil ko néew kàttan jafe-jafey am doom bu ngeen jokkoo ak sëriñ Ousmane Ndiaye fajkatu cosaan nag bii feeñ da koy faj ba mu wér waaye bi nëbbu it da koy jeex ba mu set ci yow bu ngeen yittewoo sëriñ Ousmane Ndiaye nag fépp fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi mën ngeen koo woo numéro téléphone bi ngeen mën a jote sëriñ Ousmane Ndiaye mooy 78 606 02 16 bis bu ngeen jëflantee ak sëriñ Ousmane Ndiaye nag ci ngeen di xam ni àdduna moo baaxoo coow rek waaye ku wet ku ne xam nga kalaman man di dugg ci néeg ubbi fekk ca bennam laxas ab ëmb mu jël ëmb bi làqati ko gis ci xalam mu daal di ŋàbbu xalam gi ñëw ba ci jëfi yàlla fi mu taxaw ci ëtt bi mu ne ko jëfe yàlla mu ne ko naam yaay mu ne ko sa baay xalamkat la woon xalam gi la fi bàyyi woon ci àdduna gannaaw xalam gi ab sàcc lawoon kon da nga doon laaj sa baay lu mu doon liggéeyee sa baay xalamkat la ab sàcc la woon jëf yàlla taxawul xol yaay ji ba yàgg mu ne ko yaay lii war nga ma ko teel a wax bu yàgg soo ma waxoon ne ma sama baay xalamkat la woon te sàcc la kon ba léegi jàngi naa xalam jàngi naa sàcc waaye baax na yaay ji ne ko des na mu ne ko lu mu des yaay mu daldi di fay jóge duggaat ci néeg bi moom yaay ji ubbiwaat gaal bi fekk fa benn sagar buy fase mu jël ko ñëw ci kanam jëfi yàlla daldi di koy fecci fekk ci ñetti dërëm mu ne ko jëfi yàlla mu ne ko naam yaay mu ne ko sa bàyyi alali addunaam yëpp lii la fi bàyyi xalam gi ak ñetti dërëm lii la fi sa baay bàyyi ci alal léegi nag yaay doomam yaa koy doon yow dong la am kon xalam gaa ngi ñetti dërëm yaa ngi jëf yàlla na ko baax na yaay asamaan set jëf yàlla takk ay bagaasam def ko ci mbuus takk ba mu dëgër mu dikk ne yaay mu ne ko mu nekk ko maa ngi dem jàngi la sama doon def sàcc ak xalam caaju ne ko waaw jëfi yàlla yow <clears throat> ci kan nga jëm mu jàngal la xalam mu ne ko xaw ma ko de yaay damay dox ba gis ku mën a xalam rek mu jàngal ma xalam ndax doom ju nekk nag tëbinu bàyyi mooy raqandigam mu ne ko waaw jëfi yàlla sàcc noo koy jànge ji mun na ko yaay loolu yomb na jëlloo mu mut fexe ba kenn du la gis du moo di kàcc mu ne ko mu ne ko naam ku ma ko jàngal daal di wëlbatiku yaay ji ne ko jëfi yàlla da nga war na toog ñuy gëstu laaj ku mën a xalam ci réew mi sunu ko xamee nga soog caa dem mu jàngal la xalam waaye di jàng metti moo xam ne xamoo ku la koy jàngal xamoo ci ban dëkk nga koy jàng ji ndax loolu wóor na mu ne ko yaay yëttee gën a ñëw jaasi bàyyi rek ma jàngi xalam mu ne ko ah kon baax na demal si ñëw ak jàmm muy dem yaa ji taxaw di ko xool defi fi yàlla ngay dem yaa ji taxaw di ko xool ba noppi koo séen daal di ñeewanti nag xolam njureel ba dugg mu daal di jooy ndeysaan dugg ci kër gi dugg ci néegam tëdd di jooy jëfi yàlla dem na dox na ñaari fan ba dugg ñetti fan mu xëy nag di dem ba ci diggante dëkk ak dëkk mu daje fa ak góor gu màggat sikkim ba weex tàll bi jaaw góor gaa ngi dëpp tengaa di ni man yor ab sikkimam gàddu mbuusam mu dajeeg moom daal di nuyeeg moom ne ko xale bi nanga def jëf yàlla na ko maa ngi fi mu ne ko foo jëm mu ne ko man de xawma ma ko góor gi ne ko xamoo ko mu ne ko déedéet mu ne ko lu la tax a jóg mu ne ko jàngi métier mu ne ko ban métier ngay jàngi mu ne ko xalam laay jàngi ak saj góor gi ne ko subhanallah xalam ak sàcc mu ne ko waaw mu ne ko lu mu ne ko moom la baay doon métier woo te doom ju nekk sañ naa tëb tëbinu baayam moo tax mu bëgg ko jàng góor gi ne a ah, doom demal yàlla ci yàlla dimbali ñu dem ba bëgg a weesaloo góor gi delloo ko ayuwaat jëf yàlla dëpp dajee góor gi góor gi ne ko dama laa bëgg a dénk ñetti kàddu waaye ñetti kàddu yi nag dama la koy jaay ñetti kàddu mooy ñetti baat waaye dama lay jaay ñetti baat yi dama la ko may xale bi taxaw ba yàgg mu ne ko ah, waaw la ma koy jaaye mu ne ko baat bu nekk ab dërëm xale bi ne ko jaay benn baat mu ne ko soo jógee fii tey ku la wooti ak ku mën a doon nanga ko bul tànqam la mu woote te bul gànt la mu woote jëfi yàlla ne ko d'accord daal di génn dërëm jox ko wëlbati ko bëgg a dem mu del ne ko maam ji góor gi taxaw mu ne ko jaar mi beneen baat mu ne ko koo tànnati na nga ko dimbali mu ne ko baax ku la yaakaar te bu tax yaakaaram mu ne ko baax yëkkati benn dërëm bi jox ko ñaar dërëm ya dem na benn dërëm a ca des jëfi yàlla walbati ku bëgg a tàggoo góor gi dox ñaari tànk ñett tànk mu geesu seen góor gay dem mu dabaat ko ne ko maam ji mu taxaw mu ne ko jaayal mu beneen baat mu ne ko mu ñetti dërëm mu ne ko waaw mu ne ko koo jekkooti na ko yërëm koo jekko na nga ko jéggal te ko jekkale mu ne ko baax na maam daal yëkkati dërëm jox ko ñetti dërëm yi mat na jëfi yàlla daal di nag loxoy kese léegi la yor mi ngi ñetti baat daal yiñ ko digal waaye yorutul benn dërëm nag bu mu yóbbuloo mu nga topp yoon way dem nag di dem ba yàgg mu dégg ab woote boo xam ne jaarul ci aw tur daf koo xëy na ko xëy xale bi jëf yàlla xool ndeyjoor gisul kenn mu xool càmmoñam gisul kenn mu ne ah waaw man jëfi yàlla ndax damay bëgg a waaru gott bii nga xam ne ay rabi àll dong nga fi nekk dëkk jegewu fi yéenu ma fi kenn tañ di ma woo ki woo kan la ndax fii gisuma fi kenn mel na man laa fi gis kon su nekk xale bi kon man lay wax daal ne ak kooku de du ma wax ak moom daal di continuer doxaat benn jéego ka ko waxoon dellu ko waxaat ne ko jëfi yàlla mu ne a ah, kii sama tur la jaar kon man lay wax kooku de kon xam na ma daal di geesu ci kanamam seenul kenn mu xool ci gannaawam gisul kenn mu xool ci kaw garab yi seenul kenn mu ne déet man damaa jommi kon kon njuuma la njuuma nag dégg naa boo ko wuyoo mu wàññi la boo wuyuwut du la wàññi ali na dem ka ko del na ko jëfi yàlla mu taxaw na na nag du wuyu waaye dina xool ba gis ba xam ci koy woo daal xool bu baax séen na garab yu jàbbasooju yu lëndëm garab yu sëq mu xool bu baax ba séen fa ñetti nit yu taxaw lañu sol di ay couleur lii mbub mu xonq la lii mbub mu weex lii mbub mu ñuul mu ne ah lekkee ay nit la lii mën a am waaye duma leen mu ji de nit ku ma xamul ku mu doon nga wooma ci àll bii ab dëkk nekkut duma fa dem kont nay dem ni tuuti xelam xalaat ne kat góor gi jaayoon na ko ne ko ko la woote na nga ko wuyu kon su rombee ñii te wuyu leen kon la ko góor ga waxoon gëmuko te defu ko te su ko deful leneen mën na ko caa fekk mu ne ah naa leen wuyu ji rek góor ge waxam waxi mag la te waxi mag mag lu yàlla waaye dafa yàgg yàlla naa dem. daal di nag jaar ci digg ñax mi jaar ci garab yi di ñurux ba dikk fekk ñett nit ñi nga xam ne ñoo ko woo ñu ngi taxaw ci benn wetu teen teen boo xam ne jàjj la jàjj mooy teen bu ñu gas ba mu sori lool ci suuf te bënut nga xam ne ña ko gas dañoo mujj toog ci bàyyi loolu moo di ak jàjj mu ngi fekk na ñooña ndeke ñett sàcc lañu ñu woon yàgg ci càcc ga nag bu bari alal nag lool nga xam ne tund yëpp ñoo ci dàq sàcc ñu sàcc nag ba am lu mat ñetti saakoy or saako yu mag nga xam ne kenn ku nekk saako ba nga yor bu doon ci jamono ji xaalis boo ko xaymaa dafay nekk ñetti téeméeri million mu mel ne kon ñetti saako ñu nekk na juróom-ñeenti téeméeri million saako yooyu nag bañ ko amee dañ doon dem kenn ku ne gàddu sab saako waa dëkk ba yëg leen leen dàq xamatu nu ñuy def saako yi ñu sànni ko ci biir teen ba ñooñu di ko xool xool gis ñu saako yi ñu ne kon ñi jëluñu ko léegi nag boobu ñooña dem ndekete ki jaar ci turub turam nag sàcc boobu moom nga dëkkoon moom foofu ñuy wax kàngaar loo nga xam ne fa la xamee nag jëfe yàlla moo tax mu jaar ci aw turam ñu daan ne ko jëfe yàlla dañoo bëggoon ñu yor la ci teen bii am na saako yu fi nekk ñetti saako or la nga génne ko ñu yeew ko ci buum gi ñu wëgg ko su génnee danañ la sédd ci alal loo xam ne danga nga mën a wëlbati ko fi nga doon dem da nga am alal joo xam ne mën nga caa dund man caa tedd ba keroog ngay faatu jëf yàlla taxaw ba yàgg mu ne ah waa ca yor leen mu daal jël na genn buum bu dijj am na garab gu fa dend ñu jël catu buum gi yeew ko ci garab gi daa taatu garab jël leen cat li nag daal koy laxase nag jëfi yàlla laxas bu mu dëgër ñu ne ko nag ca sàmbaawul sàmba nag mooy téye ci buum gi yooru jëm suuf di fi yàlla sàmbaawu ñu topp ko mu sàmbaawu sàmbaawu ba ak jël na saako yeew ci buum gi ñu wëgg saako ba génn ñu teg fee dellu yoraat na buum gi saako bi buum gi ñëw ñu jël saako bi yeew mu wëgg ba saako bi génn ñu jël teg fee jëlaat nag bu ngi yoraat ci biir ba mu agsi jëfi yàlla yeew ci saako ñu xëcc saako bi ba saako bi génn muy ñetti saaku ñu daal ne xam nga nu ñuy defa nañ dem bàyyi xale bi ci biir pax mi muy bàmmeelam ndax buñ ko génnee li ñu ko diggoon digoon daañu ko jox te kon sunu xaaj day manqué kon nañ ko bàyyi ci biir fi lay faatoo ñu daal ne ñu dem nag bàyyi fa buum jël nag seeni saako dem ci fi yàlla nekk ci biir teen ba gisaatul buum gi déggatul ay wax mu yuuxu kenn wuyuwut mu neex fa nag di jooy di yuuxu waaye ab àll kenn wuyu mu xam ne nag dee dikk ndax fii mu nekk kenn du ko fi fekk ndax can xamu ko fi dugal dem nañu jëf yàlla nekk ca biir teen ba bu toogee ba waxtu lekk jot benn boolu añ dana ñëw bu def añ bu neex mu lekk ba regg ndox mi ñëw mu naan ñu jox ko ndox mu def lépp lum mu bëgg a def ndab la dellu ndox ma dellu jëfi yàlla ne fa ba jant bi so li ko xamal jant bu so bi itam mooy rabi àll yi nga xam ne ñëw nañu di naan si bu ndikkee ci pind bi la taxaw teen bi amul ndox mu xool ci pind bi ci biti seen bopp gaynde xam ne lii gaynde la mu xool xam ne lii ñay la ci la xamee ne jant sona mu nekk ca biir teen ba guddi keroog jaaxle lool yërëmtalu lool ba asamaan set bi asamaan mu xalaat ne moom day dee ana lan moo ko yëgal yaayam waaye nag ni tuuti mu am ngelaw lu baree baree baree bari luy riir def yàlla ne waaw lii day bëgg a tawam ngelaw loolu nag ngelaw li nag moo riir bari ba jël buum gi surufaat ko ci teen bi muy buum gi nga xam ne moom lañ ko doon yoor jëfi yàlla jàpp ci buum gi te ñooñu dañoo yeewoon nag buum ci genn garab kon buum gi du ñëw jëf yàlla tey ci buum gi nag di wëgg di ñëw ci biti di wëgg di ñëw di wëgg di ñëw ba génn ci biti naka la génn nag daal di xool gisul ñenn ci ñi nga xam ne ñoo ko dugal ca teen ba jëfi yàlla daal di fay jóge nag waaw topp yoon wi nag ma ngay dem nag aw fi mu awoon rek bu jëkkoon jubal rek di dem di dem ba yàgg mu jub ab dëkk dégg nag ñiy dëbb dégg ñiy wax mu na lii de ab dëkk la nes tuuti mu xool ci wetum nday jooram seen ñett ña nga xam ne ñoo ko jiwoon ca teen ba ñu taxaw ci genn kër garab di wax taatu garab mu ne waaw ñun naka la ñuy def dëkk bi de bu ñu fa demee ak suñu saakoy or yi danañ ñu rey nangu nañu fexe ba dugg fa guddi ñu daal di xool gis nag ay armel ceen wet ñu ne léegi nu ñuy def ñu ne lu yomb jëf yàlla ngi taxaw rek di leen déglu ngi leen di gis nag waaye ñoom gisuñu ko ñu ne léegi nañ jël saakoy or yi dem ca armeel ya gas lu mel ni bàmmeel saako bu nañu ñu def ko ci bàmmeel suñu demee ba def ko ba noppi dem ca dëkk ba toog ko ba xaaju guddi ba nga xam ne ñëpp tëdd nañu ñu soog a dikk nag sulli or bi ñu daal ne waaw waaw jëfi yàlla ngi taxaw rek leen xool ñoom gisuñu jëfi yàlla waaye jëfi yàlla mi leen di gis ñu daal di gas nag lu mel ni bàmmeel gas ba mu xóot fu nekk ñu def fa ab saako suul ko nag mu ñetti bàmmeel jëf yàlla daal di xool ba gis bàmmeel yi daal di fay jógee ñëw ci dëkk bi daal di daje nag ak ñaari dagi buur mu laaj leen kër buur ñu joxañ ko kër buur ba mu ñëwee kër buur la nuyoo dagg na leen buur laa soxla dagg nag daal di koy def li ñuy wax pilote fexe daal ba mu gis buur mu ñëwee nag ci buur nuyoog moom buur ne ko yaay kan mu ne ko man maay jëfi yàlla mu ne ko foo dëkk mu ne ko kàngaarloo ndur nag laa jóge waaye kàngaarloo laa dëkk mu ne ko lu la tax a jóg mu ne ko damaa jàngi woon xam-xam ba yàlla dogal ma am xam-xam war a ñëw nag seet nag ban buur laay àndal lëg yi mu ne ko xam-xam la mu ne ko xam-xam lu picc wax wala mbaam ŋaax ko wala fas ñaxal ko xam naa ko mu ne ko a ah, xam nga waxi picc mu ne ko waaw waaw lu picc wax xam naa ko lu mbaam ŋaaxit xam naa ko lu fas ñaxal xam naa ko mu ne ko déet picc yii yii nii yii ramutu yeeg mu ne ko waa ji picc mu mën a doon rek soo ay donc la wax xam naa ko fiñ ko waxee rek mel ne picc jékki-jékki na ciib ciib bur ne ko picc sab na lu mu wax mu ne ko nee ku dem ca armée la ñetti bàmmeel la nga fa yoo xam ne soo ko wàqee gis muy or mu ne ko ah mu ne ko waaw buur ne ko baax loolu loolu mu leer daal di woo ñetti dak ne leen ànd leen maag ngóor si ngeen dem ci armée yi nee na fa am na ñetti bàmmeel yu fa nekk suñ ko wàqee or lay doon saako or lay doon daal ne ko nag na ngeen ko xool su ngeen ko wàqee si gisu leen or nag bu mu raw ngeen indi ko ma ñu ànd ak jëfe yàlla ñëw ci armeel yi bi ñu dikkee nag mu won leen nag ñetti bàmmeel ñu wàq benn génn saako oor wàq beneen génn saako oor ba ñetti saako yëpp génn dag yi gàddu saako yi ñu ñëw ci kër gi buur ne naka mu gis ngeen saako yi ñu ne ko waawaaw mu ne gis ngeen saako yi ñu ne ko saako yaa ngi fee dell ak or ñetti bàmmeel yu mu ñett ñetti bàmmeel yëpp lañu gis mu ñetti saako buur na nag kon yow jëfi yàlla ni may def ak yow mooy dama la fiy téye nga nekk sama adjoint lépp loo bëgg ci alal dinaa la ko jox waaye man kat sama ngóor gi am naa koy wax lu ne làkk lu dégg naa ko waaye nag kuy wax ci picc ak i mala mosuma ko am comme yow mënuma laa bàyyi nga dem faaw dama la fii téye buur bi nga nekk sama at dellu déggaat nag picc mu sab mu daal ni jëfi yàlla yaa waxoon ne dégg nga waxi picc tekki woon nga wax bu jëkk ba picc mi lu mu waxaat mu ne ko picc mi nee na am na ñetti sàcc yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi ay gan lañu fi buur daal di yebal garde yi ñu dugg dëkk bi nag di seet ñi nga xam ne dëkkuñu fi ba gisoon nag ñett ñooñu nga xam ne ñoo di Samba Boye jëfi yàlla bur daldi koy woo mu ñëw taxaw ñu daldi jëli nag ñett ñooñu nga xam ne ñoo di sàcc yi nga xam ne ñoo gën a nekk ay këlfin ñoo gën a nekk mbong ñoo gën a nekk sàcc yu mag mu di keebaa ak ki nga xam ne mooy dumb ya ak itam ñetteel bi mooy baxu yox ñoom ñett ñooñu nag ba ñu dikkee buur laaj leen kenn ku nekk fu mu dëkk ak lu ko tax a jóg waaye mel ni ñoom ñoo bokk benn dëkk li leen tax a jógit mel na ni ñoom ñoo bokk métier ay sàcc lañu ñu xamal itam nag buur jédd ko nu li ñu taxoon a jóg mooy dañ doon jàll waaye mu guddi ñu jël nag sunu alal gas lu mel ni ay bàmmeel ca armeel ya denc ko buur ne kon yéen yéen moom saakoy koy or yi ñu xolante ne ko waaw mu ne yéen ay sàcc ngeen ñu ne ko waaw mu laaj leen kañ lañ dalu sàcc kenn ku nekk wax kañ la tàmbalee sàcc ba ñaata at kii ne ko man ci sama juróom-ñaari at laa tàmbalee sàcc kii ne ko man juróomi at laa tàmbalee sàcc kii na leen man day bi ma feree xàmmali ko rek ci càcc laa xàmmali ko nga xam ne daal ñoom ñett kenn ku ci ne sàcc nga lu war a mat ñeent fukki at wala juróom fukki at te kenn mësulaa jàpp léegi nag buur jëdd wax ak ñoom daal ne nag nañ leen denc ba ajjuma ma dajale waa dëkk yépp xamal leen ne leen ay sàcc ngi ci dëkk bi daañu leen nag tëj ba àjjuma ñu rey leen ñëpp yi seede wala ñu tëj leen seen ngir dund ñëpp yi seede daal di jël nag sàcc yi delloowaat ca fañ leen dencoon daal di fay bàyyi nag buur daal di xamal nag jëfi yàlla ne ko yow dama bëggoon su àjjuma ak jàmm nga bokk ak waa dëkk bi ñëw teew si ndax yow wax naa la ne ku manqué sama nguur nga ndax lu nekk am naa ko ci nguur gi ba mu des kuy wax ak baahima yi di wax ak njanaaw yi gannaaw yow dégg nga waxi njanaaw dégg nga waxi baahima dama lay téye ci dëkk bi taf la ci sama bopp ngay sama adjoint jëfe yàlla nangu ko loola gannaaw bu mu tàggoo jee ay bokkam ba noppi ajjuma jot na buur jëdd daldi woo nag mbooleem waa dëkk la sant géwél bi na ko yéeneel ma dëkk bi yëpp daje mu daldi yéene waa dëkk bi yëpp daje ca pénc ma nga xam ne gone yu ndaw yi amuñu sax fu ñu taxaw dañoo mujj yéeg ci kaw garab yi ngir mën a gis mag ak góor ak jigéen màggat ak ndaw ñëpp a teew ca pénc mi daal di génn nag toogukaay yi tegal ñi nga xam ne ay notable lañu di ay kilifa daal di génne piliyaanu buur bi daal di génneel nag jëfi yàlla moom itam piliyaan teg ko ci wetu piliyaanu buur buur daldi wax nag waa dëkk bi na leen dama bëggoon nag waxtaan ak yéen li waral waxtaan wi nag bala ma koo door damay wax sama dag yi ñu indil ma ñett ñi nga xam ne ñoo waral waxtaan wi daal ne gees dagg ne ko dem leen ngeen tijjil ma ñetti sàmba booy yooyu ngeen indil ma leen ñu dem ñu jëli ñetti sàcc ñëw taxawal leen buur na leen ñett ñi ay sàcc lañu kenn ku nekk ci ñoom ba nga dalee sàcc ak léegi mat na juróom fukki at ak lu topp kenn mësu leen a jàpp yàlla dogal nag ñu jàpp leen gannaaw yàlla nag ci tax ñu jàpp leen mooy xale bii di jëfe yàlla ndax dafa demoon jàngi xam-xam xam-xamu mën a wax lu yàlla bind bi mu dikkee nag ci man xamal may fa mu dëkk na mu nga dëkk dëkk bu ñuy wax kàngaarloo waaye fii mu nekk nii nag dëkk bi ñuy wax guta fa la jóge nee na itam xam-xamam bi mu jàngi woon mooy mën a wax lu yàlla bind nga xam ne day wax ak njanaaw yi waaye day wax ak rabi day wax ak mala yi ci biir kër yi mbaam yi ak fas yi ak xar ak bëy lu yàlla sàkk rek mën naa wax ak yow mbooloo mi nag yéemu ku nekk xool sa moroom ñu wëlbati ko xool jëfi yàlla ba xam xale bii xam-xam bii fan la ko mën a ame nit ñi kenn ku nekk yéem buur na leen bi loolu amee nag dafa ñëw ci man ne ma xam-xam bi ma am suma sañoon jëriñ ci réew mi te gannaaw maay buur réew mi suma sañoon nekk ak yow la ma wax fi ñu koy waxe am picc mu sab ma ne ko yow kat sa xam-xam mu leer ndax picc sab na wax ma kon lu picc mi sab mu ne ma picc mi nee na ku dem ci armeel ya da nga fa fekk ñetti gasitu bàmmeel yu bees bàmmeel yooyee bàmmeel benn bu nekk suñu ko wàqee daañ fa fekk saako or ma daal koy boole ak samay dàkk ñu dem ca armeel ya nam ko waxe woon it noonu la amee bàmmeel bu nekk bañ ko waxee fekk nañ fa saako or ñu indi ko bi ñu dikkee fi ñuy waxee ni tuuti mu dellu am picc mu sab di picc mi gën a ci picc yi muy ramut ma ne ko ah, yow kat picc sabaat na mu ne ma waaw ma ne ko lu wax mu ne nee na am na ñetti gan ñu dugg ci dëkk bi mooy ku ñuy wax Bakary ak ku ñuy wax ya ñetteel bi mooy Keebaa dañoo wax ne ñoo suul saako ya ca armeel ya ñu ngi ci dëkk bi xamuñ fi kenn ñu ngi ca pénc mi lii la picc mi wax buur daldi ne ma daal yeble samay dakk ñu dugg dëkk bi di seet ñi fi dëkkul ba ñu waree ñett ñooñu la indi mooy ñett ñii taxaw ma bëgg na yéen waa dëkk bi ngeen fonkal ma kii nga xam ne mooy jëfi yàlla te xam ne bis ni ki tey na ngeen jàpp ne mooy sama loxol ndey mooy sama wuutaakoon lu mu wax maa ko wax lu mu waxul waxuma ko te ku mu rey nag maa la reylu ku mu jéggal ma bàyyi la su ko neexoon tey ji ñëpp fanaane ca prison ba su ko neexoon ña nekk ca prison ba tey ñu génn leen mi ngi nii mooy jëfi yàlla mbooloo mi daal di kenn ku ne fa nga toogoon nga jóg dikk nuyu jëfi yàlla jox ko ñaari loxo daal di koy sargal dénk ko sa bopp xamal ko ne ko man maay diw diwa ma juróog diw ci dëkk bi laa dëkk def daal tubaab di wax présenté wu ngir bëgg jëfi yàlla xam la ndax gannaaw mooy léppi buur mooy loxol ndeyjooru buur mooy adjoint buur mooy porte-parole buur kon ku mat a xàmme la ba mbooloo ma nag rëjee ba dal la buur nag daal di laaj jëfi yàlla ne nag dafa am loo xam ne bëggoon naa koo waxtaan balaa mbooloo mi saato loola mooy dama am takkoo boo xam ne dama cay dem par ajjuma yi tey jii nag woote bii moo taxoon déw ma ci su ma ci masaa dem nag danaa ci am ay fan waaye ji yoon danaa fa yàgg ndax yow laa bëgg dénk sama gannaaw bëgg laa dénk dëkk bi rawatina sama kër sama benn jabarit moo fi nekk ma dénk la ko muy wéy ci say waaw loo ko sant mu def loo ko aaye mu bàyyi ba keroog may jóge dëkk bi ñuy wax saay ba ñëw su ko defee ma soog laa yewi bëgg na waa dëkk bi seere loolu ñu xam ne su ma fi nekkulee yaa fi nekk yaay buur bi di doxal li nga xam ne moom laa doon doxal lépp loo xam ne doon naa ko bañ nga bañ la ma ko waaye lépp lu mu bëggoon nga bëggale ma ko te it kenn ku ci nekk na la jox cër bu toll ni bi mu may jox man buur kooy na naa ko rey keroog su ma dikkee rey koo ne naa ko tëjit su ma dikkee tëj ko donte sama jabar ji la sax kon dëkk baa ngi sa loxo ñii nag di ñett ñii ma lay laaj loo ci xalaat ndax ma rey leen léegi walla ma tëj leen seen giir dund walla ma bàyyi leen ñu dem loo ci wax laay def jëfi yàlla na tekk ba yàgg xelam xalaat ne baayam dañ ko doon sàcc la woon te doom bi nekk tëb tëbinu baayam moo war rëq ndiggam mu doon jóg nag di seeti ku ko jàngal xalam ak ko ko jàngal sàcc gannaaw yàlla boole na ko ñetti sàcc yoo xam ne sàcc nañ lu juróom fukki at te kenn leen a jàpp kon xam na ne ñii ñu am xam-xami sàcc lañu kon bu leen reyee mën naa ñàkk du am sëriñ bu leen tëjee giir dund it mën naa nekk du am ab sëriñ kon na leen dencee ndi ba mu daal di jóg delloo booloo mu njukkal gërëm leen sant leen xamal leen kon li nga xam ne buur jëdd wax na ko ci foofu laa fas naa jaar léegi nag yéen waa dëkk bi bis ni ki tey na ngeen jàpp ne maay buur ba keroog buur di ñëw ñett ñii nag nga xam ne mooy ñetti sàmba yi te buur laaj mi ndax daf leen di tëj am da leen di rey am da leen di bàyyi li ma bëgg mooy nañ leen delloowaat ca kaso ba ba ma seet sama xel ak sama xalaat su yàlla defee buur ñibbi ma wax ko li ma bëgg ñu def leen ñu daal ne ko nag ay daal di jubóog nag jëfi yàlla ca loola mbooloo ma tasaaroo buur yewi leen mbooloo mi tasaaroo werante wi nag bari na lool ñii ne buur day li mu def da buur waaye man ànduma ci ndax koo xam ne tey ko mas a gis dëkk ba mu dëkk da koo dégg waaye xamoo moom ci boppam xamoo ndeyam xamoo baayam nga am confiance ci moom ku toll ni di jël sa nguur di ko dénk man de loolu doyuma surtout nag ko am xam-xam bay wax ak ki picc kooko daal loo koy def na ko xam kenn ki ne ko man de loolu sax yéemu li ma yéem mooy këram gi mu ko dénk ndax ku ne xam na ni jabari buur mooy njaatigil bépp jigéen bu nekk ci dëkk bii kon ku ko war a mën a àttan ku dul borom këram ji buur amut kon su ko ko dénkee bu ëllëgi ak si bu ci lu mu naqari ku koy wax fan la koy waxee ji werante bi daal bari na ca dëkk ba ñaar ñoo séen ña ngay ànd di wax te la ñuy wax mooy diggante buur ak jëfi yàlla waaye li ci ma nekk daal buur defaru na préparé na defar na itam ay yóbbalam yépp woo na jabar ji mu ñëw mu dénk ko jëfi yàlla ne ko kii nag ci moom ngay xool lu mu la sant defal loola lu mu la bàyyiloo nga bàyyee ko fu mu ne bul fa dem bul fa dem moo yore nguur gi ci bëgg-bëggam ngay wéy ba keroog may ñëw tubaab dina ko baax na buur daldi tàggu jafe yàlla daldi di nag takk nag fasam ànd ak gàngoor gi mu baaxoo àndal mu nga jëm na dëkk ba ñuy wax saay dem na ca takkoo ba ba mu demee jëfi yàlla toog ba ñetti fan jabari buur bi moo koy indil ndékki moo ko indil añ moo ko indil reer defaral ko néeg bi soog a dem néegam tëri ba ñetti fan ya jàllee mu am benn bés mu am ñaari daggi buur yu jagatoo maanaam ñu jàppoo gaal gu mag dag yi ay ponkal lañu ñu jàppoo gaal gi daldi jaar ci néeg buur sar ci buntu wàll sarale ba néeg bi dafa am ñaari bunt dafa am bunt boo xam ne boo jógee ci biti ci dëkk bi muy bunt bi gan ñi dugge foofu ngay jaar dugg ci biir néeg bi waaye soo jëmee nag ci biir kër gi ci ruq jigéen ña ca bunt ba ci des ca ngay jàll ñooñu nag di jàppoo gaal gi jaar fa nuyu jëfe yàlla jaar ca bunt ba ci des dem su ñu demee ba ca ëllëg sa ñu del jàppawaat gaal gi jaaraat ci niig bi jàll ci bunt ba ca jëm ci ëtt ba ñu def ko ñetti fan def ko ñeenti fan def ko juróomi fan bu njëkk ba ba leen laajee ñu ne ko dafa am jabari buur ku muy fóotloo póot mi la ñuy yóbbu suñ ko fóotee paase ko ba ci ëllëg saa ñu jël yére am póot la ndekete booba jabari buur moo am aw faram woo xam ne mooy dugg ci gaal gi daje buur bi jël ko yóbbul ko ndaw si mu fanaan su asamaan setee waaju duggaat ci gaal gi ñu jagatoo jàppoo gaal gi jaaraat ci néeg bi dem jëfi yàlla nag ñi ngi jàpp moom liñ ko wax na ko jabare buur mooy joxe am ay yére ñu fóotal ko daggee ko ko yóbbul suñ ko fóotee paase ko ca ëllëg sa ñu jëliwaat yére yi indiwaat jox ndaw si loolu mooy indi gaal gi di fi jaara ka jaaraat mu wéy ca loolu nag xalaat boobu ba benn bis mu ne man de waay góor ga am na lu ma waxoon noon na ma woon ku yaakaar te bu tas yaakaaram te bu daf maa bàyyee gannaawam dénk ma soxnaam te ma gis daal gaal gi di fi jaar ndaw suy fóot na te man daal am póot wax dëgg yàlla ma ci xam soo fóotloo tey mën ngaa bañ a fóot lu suba wala ginnaaw suba waaye bët bu set póot daal man xaw ma man de gaal gi bu dikkatee dinaa ko ubbi xool póot ma te ëllëg sa ne yoroon gaal ga del siwaat ak gaal gi waajaa ngi ci biir gaal gi nam ko daan baaxoo defee naka lañ dikk ba ci néeg bi ñu romb nag jëfi yàlla fi mu toog ci gàngu naayu buur mu daal leen di dag yi taxaw mu ne leen waaw yéen lu nekk ci gaal ngeen ne ñu ne ko jëfi yàlla lañ la waxoon démb ak bërki démb mooy sunu waxu tey gaal gi jabari buur mii ay yére ma ci nekk day fóotloo ku nekk ca biti buñ demee bàyyi fa yére yëpp mu fóot paase ko bu ci ëllëg saa ñu jël yére yi indil ko ndaw si mu ne waa léegi kaale mu gaal gi ñu xoolante nag ne ko ay yére dong la mu ne waaw waaye itam du jaadu ñu dénk ma lu toll ni kër lu toll ni nit muy jabaram ma wëlbatiku di am kumpa sama xel di ñaaw may wéyee njort nañ ma ubbil gaal gi naka ñu ne kul bét gaal gi nag ci kaw ñàkk pexe waa ji na xujj jëfe yàlla daal yëngal boppam xam ne lii mooy póot mi dag yi taxaw mu ne lii mooy póot mi daal ne waa ji ci biir gaal gi yow moom xam nga ne taxuma ngay wax yow moom aji dee ba noppi nga waaye ñaar ñii nga xam ne ay daggi buur bi lañu di ànd ci trikaas yii ñoom laay jëkk rey soog yow su ma noppee nag ndaw sii nga xam ne man la bëgg a teg gàcce ndax ba fi jëkkëram nekkee daawu ko def jëkkëram dem dénk ma kër gi dénk ma ko moom mu di ko def moom it dama koy rey daal di leen baax na jël leen gaal ngeen teg ko fee daal ne waa ji demal nga taxaw ne waa ji génn dem taxaw mu daal ne dag yi taxaw leen ci wetu waa ji daggi ñëw taxaw ci wetu waa ji jëfi yàlla daal na ñoo ket ne nag day woo dugg naan ci ñoom ñi nga xam ne bu doon sunu réew ñi ñoom ñooy farakaba yi ñoom ñoo war a rey mu daal na ñokket di leen wooyi xelam na yor ci ne góor gi kat jaayoon na ko baat baat bu mooy lan koo jekkut na ko jéggal te baat bu ñor na ko lool kon jekku na waa ji nekkoon ci gaal gi jekku na dag yii nga xam ne ñoo doon yóbbu gaal gi ak a ñëw jekku na jabari buur bii nga xam ne moo daan tax ñu indil ko waaj kon léegi nu muy def kon léegi koo jekkooti na ko jéggal daal di dugg mu ne nag ni muy def mooy daf leen di tëj du leen rey fi waaye na leen tëj ba xelam dellu si dajeeg buur it mën a ñëw mu xamal ko defo yi nga xam ne am na su buur dee rey rey su dee jéggale jéggale suy tëj giir dund tëj giir boole ko ak ñett sàmbaaboo yi ñu yóbbu leen ca yi tëj leen ñoom itam ñu fekki fa nag dumb ya ak ki nga xam ne mooy keebaa seen ñetteel bi muy ñetti saadixina yi sàmbaaboo yi ñu dem bañ leen tëjee nag dëkk bi coow li bari lool werante yi bari ak commentaire yi jabari buur bi ay bokkam ñëw ci moom ñu ko ah def nga lu rëy de te it fi nga ko defe sa biir juddu nga ko defee te jabari buur nga woon ñu lay xoolee buur nga def gii njaaloo gu mag te xam nga buur bu lay rey ñëpp dañuy seede yow bu la buur reytoon it dootu am jëkkër ci dëkk bi réew mi sax laay wax waxuma laa nag xam nga ne buur lay rey yow danga nga dee reyaale sa dag yi sa dag yi nga xam ne ñoo doon liggéey yow ndaw si nag tiit daal di xalaat daal ne waa baax na dinaa am pexe buur bi def na foofa ca takk ko war a mat fukki fan ak juróom waxoon naa leen ne dana ko dox fukki fan ak juróom bala àgg ca dëkk ba waaye mu ñu bis fukki fan la ak juróom kon su fa defee fukki fan ak juróom muy weer ak fukki fan ak juróom léegi nag buur ma ngay waaj ñibbisi nam ko baaxoo defee tam moo di sàkk ay dat yoo xam ne ñeent la ñuy doon mu yebal leen xamal leen leen su ngeen demee ca dëkk ba ngeen wax waa dëkk ba ne buur nee na bis sàngam dana ñibbisi nangu nañu nag loolu dag jóge nañu fa ñëw nañ ci dëkk bi bi ñu dikkee ñëw nañu ci ki nga xam ne moo fi nekkal buur te moo di jëfe yàlla ñu naan ko ndono mu dikkee nuyoog moom mu laaj ko ana buur mu ne ko ma mu ne ko lu wax mu ne ko moom ma yebal maag ñett ñii dañoo ñëw ngir xamal waa dëkk bi ne leen buur ne dana ñëw bi sàngam te yow mi nga xam ne nag yaa nekkal buur yow la koy wax nga yëgal ko sab géwal mu yëgal ko waa dëkk bi nee na itam na ko wax soxnaam muy lingéer mu ne ko waa jàllal lingéer mi ci biir tag bi daal di jàll ñëw ci lingéer jabari buur bi mu laaj ko ana buur mu ne ko magam mu jàmm santeeg moom mu ne ko nag buur neena na bi sàngam dana ñibbisi ngeen jabari buur ne ko baax na mu daal di génn tàggatoog moom daal di génn tàggatoog jafe yàlla ma ngay delluwaat nag fa mu jóge woon naka la génn buur daal di jóg daal di wolu nag géwél bi nga xam ne moo di yéene mu ñëw mu ne ko yéeneel ma mboolem waa dëkk bi nee leen nañu daje ndax buur dafa war a ñibbisi dañ ko war a teeru togg ay cere rey ay gàtt defar cere lay tubarkàll loolu nag la jafe yàlla wax ne géwél bi na ko wax waa dëkk bi jàpp nag bis bi waa dëkk bi daje ca pénc bis bi jot na waa dëkk bi yëpp daje nañu ca pénc mi jëfe yàlla daal di xam ne nag ne li may di yëgal nag mooy ñëw ak buur bis sàngam lay doon ma bëgg na teer bañ ko daan teeru bu jëkkoon ba ma fekkewul te dégg ko teer bu raw booba laa bëgg ngeen teeru ko xam ngeen ne nag am na lu fi bur bàyyiwutoon gannaawam te mu am waaye loolu itam damaa bëgg lépp ñu teg ko fi suuf ba buur ñëw ba gisal boppam ndax xam ngeen ne ñaari dagg ngi woon ca dagg yi yoo xam ne fi ko buur bàyyi woon ñuy daggi boppam waaye complice bi amoon ci ndaw si aku faram muy jabar ji moo taxoon ñaar nag yooyu daan jàppoo kees gi ñoom ma arrêté leen ñu nga ca magasin ba nga xam ne ci laa tëj nag ñetti sàcc ñooñu te mooy Bakary ci laa tëj itam Dumbuya waaye kii di Kéba itam ma nga ca ñett ñooñu nag nga xam ne ñoo doon sàcc yi sàcc loolu ma juróom fukki at ak nangam te kenn jàpp leen ñu nga ca kaso may ndi xamal nag ne kii di jabari buur di lingéer moom du ma ko defagun dara dëgg la buur nag joxoon na ma ab àtteem noon na ma sama gannaaw lu fi nit def yaa yor àtteem bu ci rey waree reyal bu ci tëj waree tëjal bu ci génn réew mi waree génneel bu ci dóor waree it dóoral kon am naa sañ-sañu nii ma def sàcc yi tëj leen am naa sañ def ko Linguère waaye nag jabar dafa jege jëkkëram te mën naa am buur jox na ma lépp waaye jël lépp nga jël lépp gisu ko def dama ko bëgg a bàyyi ba borom këram mbooloo man nangu loola ñii ànd ci ñeneen da ko na rey li mu def dafa ñaaw ñu ne Linguère mooy kan la tëj diw rendi diw mën na ko rendi penc mi daal xaaj boo gis ñee ñoo bokk xalaat ñii bokk xalaat waaye jëfi yàlla moom la mu def mooy bàyyi fi ndaw si te yëgal na waa dëkk bi ñëw buur ak berne yi ñu ko war a defal ak gàtt yi ñu war a rey ñaata gàtt ñaata xar ñaata nag ñaata bëy ñaata ginaar cere yi ñu koy togg ci loolu daal la joxe ay ndénkaaneem na leen nag kon ni ma ko waxee boo ci xat dama ñëpp ne waaw mu ne mën ngeen delluwaat ci yitt yi ñu daal di jóg nag ñoom ñëpp tasaaroo werante wi jàpp kaw jàpp suuf jëfi yàlla delluwaat ca kër buur gam nekkoon mbooloo ma kenn ko nekk ñibbi sa kër waaye nag yaa ngi préparé lii nga xam ne moom la wax naka la dem ba yàlla dogal bis ba jot buur war a ñëw ñu naa ah, tey la buur di ñëw ñu ne waaw tey la buur di ñëw de ñu naa man de li ma gën a jaaxal mooy ñaar garde yañ jàpp leen ca prison ba ñoom xam naa ne su buur dikkee te yëg li ñu def dañ leen di rey génn moom dootuñu ko def lañ leen di reyee ñu ne loolu dëgg la waaye jabari buur bi nga xam ne lu garde yi def moo leen ci dugal lépp ak mooma aw ma sikk sàkk ci ne waxuma la moom tëj gi waaye dañ koy rendi ñu ne waaw buur nag ñëw na ca timis dugg ci dëkk bi ñu tëgg ndënd waa dëkk bi daje ñu génne reer yi di way buur junjung yi tëgg tubarkal penc mi tubarkal ñu ne ah buur ñëw na buur ñëw na buur ñëw na laal di lal nag tappi yi buur fa nga xam ne fa lay fas wi jaar nga jamono yooyu nag ak léegi bokkul léegi xëy na wata la waaye boobu ay fas mooy tukki ak i baax la ak i gëléem buur fas wu rafet moom la yore ñu lalal fas wi nag sëriñ tab fas wi ci lay jaar ba agsi ci kër naka la agsi dag yaa koy wàcce léew ko teg ci gàngu naaj yenu gàngu naaj gi nag ba ci ñetteel bi étage fi nga xam ne fi la buur dëkk mooy néegu buur foofu lañ koy wàcc ba ñu dëkkee ba ci bunt bi ci ne ñoo ket jog dajeeg moom sargal ko mooy jëfi yàlla mi mu fi bàyyi woon muy xale bi te mooy doxandéem ci dëkk bi xam ngeen li ko fi lépp xamoon ngeen ko naka la buur ak si nu ñoo jafe yàlla jàmm santeeg moom daal ne ko ana lingéer mu ne ko lingéer nga néegam buur na ñoo ket jóg dem di ko wujj jëf yàlla ne ko tee nga caa yónnee ñu indi ko mu ne ah déedéet gan laa te gan moo war a nuyu dëkk def na yéen laa fekk bàyyil màgg fa jëf yàlla noppi mu dal di dem néeg lingéer daal di nuyoo fekk lingéer di préparer nag lay wi nga xam ne moom la war a wax buur tax na mu def nag kanam gi noo xam ne mel na ne ko am fukki fan yu mu lékkul naanoon kanam gi yërëmtu na lool naka la buur ak daal ne ko waaw lingéer ji du lu xew mu ne ko ah, li xew day buur neexut a wax waaye mën su koo ñàkk wax nag ndax lu jin yàggate yaay njaag bur yegg suuf toog ne lan la mu ne ko damaa xam ne xale bii nga fi indi xamoo garayam xamoo fàllayam xamoo fu mu dëkk xamoo ndeyam xamoo baayam nga indi ko ci dëkk bi jël ni dëkk bii di réex ak ni réex toll <coughs> nga ne ko dëkk baa ngi sa loxo loo fi dogal mu am loo fi dogalut du am ñu ne déete waaye nga yëkkati alal joo am ne sama alal bu kenn dox digg mag moom lu waay bëgg sama alal na ngay mbokk dib jàmbur bu la ko jëfi yàlla joxul doo ko am ñu ne déete waaye nga wëlbati man mii sa soxna sa jabar nga xam ne jigéen dëkk bi yëpp maay seen liggéey nga yëkkati sama kilifteef teg ko ci loxol jëfi yàlla daal di wax ne nag lu ma digal naa ko def lu ma aaye naa ko bàyyi lu ma wax yaa ko wax lu ma sant yaa ma ko sant waa dëkk bépp seede nga ne leen nag samay ndénkaan yi ak sama yii ma wax ku ko tebbat am na sañ-sañu rey la am na sañ-sañu yeew la am na sañ-sañu tëj la du lii nga wax bu ne ko ci lu wér mu ne ko keroog ba nga génnee dëkk bi ba nii nga ñëwee bët bu set ci sàkk ma guddi ak bëccëg dafa may sàkk pour ne teg nga xam ne keroog xool na lingéer ba juróom-ñaar yi wañ mën a toog ci bët bi te du xef am lu ko mett nag lool mustaaf yi fasto bu ne jàkk lingéer ne ko nga ne lan mu ne ko xale bii di jëfe yàlla keroog ba nga fi jógee ba bisub tey jii ca sàkkumal dëkk guddi ak bëccëg te lépp nañ yow ndax yow jëfi yàlla xamoo koy ndeyam xamoo koy baayam dëkkul ci dëkk bi doxal ndéem la fi xamagoo jikkoom responsabilité bi nga ko jox dafa rëy dëkk baa ngoog sama alal ngoog sama soxnaa ngoog lii buur koo koy defal ku ne war nga koo xam-xam gu wér léegi nag looloo tax ma nekk ci naqar du ma nelaw guddi du ma nelaw bëcc ndax wax bu ci ay wax laay nekk ak moom ak xeex ak euh, dandoore ak wax ju ñaaw ju ne mu di ma ko wax saagaak xasak lu ne ndax dafa may wax may bañ te moom ëpp doole bu na tekk ba yàgg mu daal ne ñokket daal di ñëw dugg ci néeg bi di fi yàlla di wax ak moom mu romb ko génn cëpp biti ca penc ma daal di seen benn dag daal di koy woo mu dikk mu ne ko fekk ma néeg lingeer dag bi dugg si wax naa la néeg buur bi boo ci jaaree bala ngay mën a gis lingeer dangay ngay jaar ci bunt ba ca wàlla mu daal jaar ca bunt ba dem fekk lingéer buur ak si toog dag bi ak si toog jabar ji na buur dag bi sax ma ma fàttali laataa ngay woo beneen dag ma xamal la ne sa ñaar dag ya nga fi bàyyi woon muy diw ak jiw mu ne kaa ah, mu ne ko tëj na leen ci kaso te lu tax mu tëj leen mooy daf leen a waxoon na leen bi ma santee moom jëfi yàlla ma bañ daf ne nañ ma dóor garde yi nag xam naa seen xol ñawante nañ ñu dóor ma garde yi xoolante jëfi yàlla taxaw ba yàgg mu ne leen ndax li leen sant ngeen ko def gàddi na ko déedéet mu ne kon dama leen tëj gàddi na ko sooy ba nga tëj ñu waaye lingeer mii yàgg na ñoom moom xam nañ ko bu wér xam nañ ne nag buur nga fi toogal te waxi buur waalu sant waaye wax dëgg yàlla ñu jël ay yar di ko dóor lingeer ñun néeg nañu ko te it ñemewuñu ko nag sooy ba nag nga tëj ñu mu daal ne kon dama leen tëj nii la tëj ñaari garde yi buur ne ko ana garde yi mu ne ko ña ca magasin ba ñu tëj Bakary Dumbuya mu ne dënd ba yàgg mu daal di wax garde bi mu woon ne ko duggal ma dëkk bi nga waxal ma géwél yi ne leen nañ ma wool waa dëkk bi ca penc bi daal di génn daal dajale waa dëkk bi yëpp lépp nag dañuy romb jëfe yàlla nday jor ak càmmoñ bur waxu ko dara ndaw sa it waxul dara ma nga néegam buur nag jabar ji ñurub na ko ba mu fees wax na ko it ay wax yoo xam ne buur am na lu ko naqari lool nga xam ne gis jëfi yàlla ak bët ku ko rey sax moo ko gënal waaye waa dëkk ba daje nañ ca pénc ñoom ñëpp ne gorom ñu jël gàngu naa yog buur ñu indi tegal ko garde yi te bu doon fii la ci bawal dañuy wax farakaba yi ñu ngi taxaw fi ñu baaxoo taxaw ci bóor ci taxawee ci bopp bi ci taxawee ci tànk yi mooy leen dem nag ngeen jël li mën a jëfi yàlla garde yi ñëw jël jëfi yàlla jëfeenu ko ñu jàpp nga xam ne jiitaluñ ko dañ ko sëkkatal taw ñaari mbagg yi ñu ànd moom ba indi ko ci mbooloo mi ci kanam buur buur daal ne ko waa koy taxawal jëf yàlla taxaw waa dëkk bi nag ñi xibaar bi ñoom ñëpp ñu ngi am lu leen jaaxal lool ndax jëf yàlla mii nga xam ni buur leen ko mën a atte su ma saa toog ci penc bi dañ koy tegal gàngunaay ni ki ñuy tegalee buur gàngunaay dañ koy wormaal dañ koy jox cër tey jëf yàlla ñu jiital ko tëngam ko indi ko taxawloo ko ci kanam buur garde yi ñeme ko lool lii nag moo jaaxal waa dëkk bi ñu ci bari ndax bur waxagul li xew buur naa leen maa leen woolu woon sama ñëw nag day lu bett waaye nag réex gii nga xam ne wer naa lu mat fanweeri at ak nangam naqar wu toll ne bi ma am tey mësuma ko am réex ba ma dee buur ba nëgëni fii jiite dëkk bi ñu may wooye buur réex ba suñ jone la tey naqar wi ma am mësuma ko am nit wala mbooloo mi nag kenn ku nekk jàpp su daay sikkim ñu xoolante kenn ku nekk xool sa moroom ñu xoolante buur na leen naqar wi moo di dama doon dem sama takkoo bàyyi fii jëfi yàlla mi dénk ko dëkk bi ak waa dëkk bi dénk ko it sama kër ak sama soxna jox ko sama alal tam na ko la neex defal dëkk baa ngi koo fi rey maa la maa la ko reyloo koo fi tëj man la ko maa la ko tëjloo te it loo fi def maa la ko sant koo fi sant mu bañ am nga sañ-sañu rey ko am nga sañ-sañu tëj ko am nga sañ-sañu dóor lii laa waxoon keroog jotaay bi ñu ne ah waaw loolu da nga waxoon ñu ne ah man ah loolu de moo fi doon dox ba nëgëri mu ne leen ndekete keroog ba mu fi jógee laataa may génn dëkk bi ndekete jëfi yàlla mi ngi bay woon xel sama soxna ñu ci bari seen dënn rëcc ñenn ñi tiit ba seen rongoñ di wàcc ndax ku buur na jàkk na ko danga doon jaaloog sama soxna ngay tiit moo tax ñii seen dënn rëcc na ñii seen rongoñ a ngi tuuru ñoom ñëpp na ñoom àndandoo xool na buur bu wér nga xam ne wenn woy naaw sax kenn du ko dàq na teg dara yëngatu ñëpp a ngi déglu buur bët yi nag di baagante diggante buur ak jëfi yàlla bu ñu xoolee buur ba yàgg ñu xool jëfi yàlla buur a ngi mer ba mustaas yi fastoo buur na leen waxuma si la gën a metti bët bu set moog sama soxna mi fanaanee xeex ba asamaan set ngir mooy sàkku sama soxna lingéer sama soxna nangulu ko la mu mujjee mooy jël sama ñaari garde daat leen di jox ndigalal nañu ko dóoral lingéer walla mu tëj leen garde yi ne ko xanaa nga tëj no waaye ñun ñemewuñoo dóor nag lingéer ndax lingéer yàgg nañu xam nañu wax dëgg yaa ñu muñ koo dóor su la neexee nag nga tëj mu jël na sama ñaari garde yooyu tëj leen ci prison mbooloo mi nag murmur yu bari ñu ngi naan ah, kon lii ndekete moo tax ñu tëj ñaari garde yu diw ak diw ñee ne waaw waaw ñu ne kon kay kii nekk du ku baax ñu ne bu doo ko def kat man su ma la xamut duma ma dénk ab dëkk waxuma laa di la dénk sama alal waxu malaak di la sama soxna naan lu ma digal mu def ko lu ma sant mu def wax yi bari nag lool werante yi bari ne nag léegi lu ci pexe buur ne léegi tëj na samay garde dóorlu na sama soxna te it su ma yeexoon a ñëw lu bon dina am walla mu rey ko kon ni may def mooy moom dama koy rey moom jëfi yàlla bala ma ko rey dinaa yónnee seen dëkk ndax neena na ma nga dëkk dëkk bu ñu wax kàngaarloo waaye nag yaay ma ngi ndulum ji di sëy kon damay yónnee ca yaay ji mu dikk ma wooyi nag ay mbokki boppam ca kàngaarloo bu ñu bokki dikk fii nag ñu xool seen doom xoolab mu jëntal ma kon dama koy tëj fi mu nekk nii ba yónnee kàngaarloo ak nduluñ daal di woo nag ñeenti dag ñaar ñii mu yebal leen kàngaarloo ñaar ñii mu yebal leen nduluñ ci yaayi jëfi yàlla dag mu daal di wax nag yeneen ñaari dag nañ ko yóbbul jëfi yàlla ca prison ba mu fekk fa keebaa ak baakari ak dumbuyaa sàcc yam fa tëjoon ak ñaari garde ya nga xam ne ñoom la fa tëj ndax ñu doon jàppoo kees bi ñoo ñu jël nag di yàlla ña ngi koy yóbbu nag di ko tëj ca magasin yi naka la ñu agsi ki ubbi magasin bi ba mu nekkul bët daal di yem nag ci garde yi ak ñett sàcc ñi garde yi xool ko muy jëfe yàlla sàcc yi xool xam ne kii mooy ka leen tëj lu woon kii mooy bool nag buur na leen am na ñetti saako yi urus yoo xam ne ñu nga ci armeel yi garde itam xool daldi xam ne kii mooy kees bi ñuy jagatoo kees gi ba tax ñu ubbi kees ga fekk fa gone góor gi nga xam ne mooy farlu lingéer kon kii moo leen tëjoon ñu daal di xalaat nag garde yi nga xam ne ñoo ko indi daal di nag yéen kat buur nee na yéen ñaar ñi yéen ngeen génn mu ñi tuumaloon ndaw si ñu doon gàdd gàdd gàddu kees euh, gaal gi gardee xoolante ñoom ñaar ñu ne ko nag ñun mënuñoo dem ci noonu ndax kii nga fi indi bëgg ko fee tëj bëgg noo génne duñu ko man ndax daf noo jekk woon jéggal ñu kon nu itam jéggal googu nag tere soog a li mën a am mooy nga boole ñu ñëpp bàyyi mbaa nga boole ñun ñëpp dugal ci biir taxaw di xoolante ba yàgg mu ne man aw ma sañ-sañu bañ koo tëj yéen it aw ma sañ-sañu bàyyi fi ndax buur waxumoon loolu daf na na boo demee ñaari garde ya fa nekkoon te moom mu tëjoon leen fa te sama jabar neen li tax mu tëj leen mooy daf leen dóorloo woon lingéer garde yi bañ mu tëj leen gannaaw ñibbisi naa nag te xam naa ne man sama jabar bañ koo dóor a taxoon ñu tëj leen baal naa ne nañ génn si ñu ne ko nag ñun duñ génn lu dul jëfe yàlla dafa mën a ànd ak ñun mënut a ànd ak ñun ñu tëjaat garde yi ne kon ma tëj leen fi dem wax ko boobu daal di jël nag jëfe yàlla booleeg garde yam fa tëjoon ak ñett sàcc yi tëj leen ñu nekk fa léegi juróom-benn ñoo xam ne ay prison lañu tëj leen leen ci kaso ñaari garde yi wëlbati ko ak seen loxoy kese ba ñu dikkee buur na leen ana garde yi ñu tëjoon ñu ne ko ah garde yaa nga fa mu ne garde yaa ñu nekko ko waaw mu ne xanaa waxul ne buur ne ne bàyyi na leen mu ne ko ah waaye dañoo wax ne. kii di jëfi yàlla ma ñu fay di bëgg koo tëj ba ko da leen a jéggaloon te duñ ko fàtte kon tey jii bu leen fekk ca kaso ba dañuy mën a ànd génn kaso mbaa ñu du dugg kaso waaye ñoom seen ngor mayu leen ñu bàyyi jëfi yàlla ci kaso bi di ñibbisi loolu mënuñu ndax ngor ngor a koy fay ne waaw ko da leen a jéggal loolu googu kàddu mooy lan daal ne bërit daal di woo Linguère moom ko ne Linguère mu ne ko naam xale yi xam naa ne foofu la ñuy mën a yemale histoire ba tey waaye mel ni dëgg dëgg gaa ngi bëgg a dikk na ndax kàddu googu nga xam ne jibi ca kaso ba te mooy jëf yàlla mii daf ñoo lebaloon ngor te mooy daf noo jekk woon te jéggal nu kon nu itam duñ lu may seereel te seere suusu xam ne bu sottee du jigli ngeen waaye ñun li ñuy def mooy nañu tënk na kon fii histoire ndono wala jëfi yàlla yàlla sunu boroom dafa bind doomu aadama boole ko ak ay nattu ay jàngoro yu ko mën a gàllankoor waaye daan ñi boole ak ay gaayam yu mu joxi kéemtaan ba ñuy saafara jàngoro yu bari yu doomu aadama yi di weyaale bokk ci ñoom jàmbaar ju kenn dootul laaj aw turam muy Serigne Ousmane Ndiaye tradipraticien Serigne Ousmane Ndiaye nag di boroom xam-xam buy faj fajum cosaan waaye ay garabam mu di ko composé ak liy bàyyi koo ci gàncax Serigne Ousmane Ndiaye nag sunu boroom may ko lool ci faj li nga xam ni mooy ndoxum siti moo xam muy bu nëbbu bi wala bu feeñ dina faj hémorroïde interne wala externe tàng dina faj tension waaye it dina faj estomac Serigne Ousmane Ndiaye yemul foofu waaye dina faj rhumatisme dina faj góox gu néew kàttan dina faj hépatique dina faj jabeet ak sciatique ak jàngoro yu bari yu doomu aadama yi di weeyaale te li ci gën a neex nag mooy ay garabam lépp ci gàncax yi lay bàyyi ko moo tax boo ko dee jëfandikoo du bàyyi benn effet secondaire ci sa yaram ndoxum siti nag di jàngoro ju yaatu te sonal doomu aadama yi waaye bari ay màndarga ak ay signes yu mën a feeñe ci nit waaye góor ba indil ko néew a sonal jafe am doom bu ngeen jokkoo ak Serigne Ousmane Ndiaye fajkatu cosaan nag bii feeñ da koy faj ba mu wér waaye bi nëbbu it da koy jeex ba mu set ci yow bu ngeen yittewoo Serigne Ousmane Ndiaye nag fépp fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi mën ngeen koo woo numéro téléphone bi ngeen mën a jote Serigne Ousmane Ndiaye mooy 78 606 02 16 bis bu ngeen jëflantee ak Serigne Ousmane Ndiaye nag ci ngeen di xam ni àdduna moo baaxoo coow rek waaye ku wéet ku ne xam nga kalaman man